dañu fay wax rekk li nga xam ne mooy melo yonent bi te yonent bi moo di royukaayu jullit yëpp waxat kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana loolu la yàlla wax kii de mën na nekk modèle pour yéen def naa ko muy seen modèle moom yonent bi kooku nag kon dajale nit ñi wax leen benn parti ci jikkoom ah mu daan dundee ak i nu mu daan dundee ak i doomam nu mu daan dundee ak i entourage am nu mu daan dundee dundu économique nu mu daan dundee ci wàllu finance nu mu daan dundee ci wàllu yar eh, loolu ci la ñu mën a eh, daje def ci gàmm muy taxawaay bu rafet bu dee biddaa itam biddaa bu rafet la waaw yow bu ca sa yoon nekkul bu ca sa yoon nekk rek waaye nag sa yéen nekku ci ba noppi nga taxaw nag publiquement di wane naan euh, bi daala euh, di ko jéem a critiquer yow buñ la reyee it yaa tooñ yaa tooñ